TMS TV. salaamaaleykum euh, mbokk yi baaxoo seetaan euh, seen suite euh, TMS TV ñu dee si waat tey baaxe benn communiqué mu bàyyeekoo ci ki nga xamante ni bi moom moo di Serigne Thierno lay Sow ni ñu koy waxee. the king of the king xalifa général euh, kulli junne xalifa général kullu médecine euh, traditionnelle euh, du monde képp nga xam ni da nga bëgg curaayu volcan bi joni joni vite fait bien fait mu nekk ay garab yu am solo yu lay musal boo ko soxlaa mën nga wooti ci numéro yi 78 137 47 19 gaawal gaaw daw gaaw uti ay cuuraay muslaay eh, ci ki nga xam ne moom moo di xalifa général eh, kullu médecine traditionnelle du monde eh, Serigne Thierno Moulay Sow da nga bëgg a dem fii ngay jaar naka ngay def da ngay dem fi nga xam ne moom moo di Cambérène 1 ci rond-point bi ci côté terrain jamono bi en face géej gi foofu la kër Serigne Thierno Moulay Sow euh, nekk mën nga woote tamit bala ngaa dem ci numéro bi su boobaa di nga jot ndaw li nga xam ni moom la fa teg mën nga woote ci 78 137 47 19 78 137 47 19. TMS TV.